moom duñu comp duñu xam coupure courant ñoom nañuy pare rek la ñu xam waaw kon moom courant bi moom muy baax moo ñuy arrangé chaque instant. korite ren gi nar a wuteeg loolu bu daaw marché yi nit yaa ngi fa monte tailleur yi nekk ci diggante jafe-jafe wu mbas mi coupure courant yi ak ñàkkum client. ma ngoog euh, mbokk yi ci noonu ñu jukkil leen xeetu yéenekaay yi fas yéene ko wal rek Walf Quotidien yéenekaay bi jiitu ca fajar euh, ci noone la jiitoo ci mbirum fichier électoral bi ay auditeurs yoo xamante ne euh, jot nañoo yëggee la ñu jot a càmbar ci mbirum fichier googule ak ay acteurs politiques Sénégal ndaje ba nag jafe-jafe yu bari sulleeku na fa Walf Quotidien ne bokk na ci sax li ci gën a yéeme mooy malaisiens yi ñoom ñooy saytu bile fichier électoral bu Sénégal. Sénégal euh, saay buñ ko nammee si fokk daal euh, ñu wut autorisation goo xamante ne euh, malaisiens yi ñoo ñu koy jox ngir ñu mun caa dugg euh, yéen kaa bi di ñu yeggee tamit jafe-jafe gëneen ci chiffre yoo xamante ne bawoo na ca ci atum 2017 la ca feeñ ak seen leneen ak leneen bokk na ci tamit ne lu waaju ci maanaam ñi war a wote am na ci ñoo xamante ne foofu nañu sax tuxu fa ñu daan wote woteetuñ fa lu toll ci juróomi junni doomi aadama yoo xamante ne fañ daan wote at bu jot euh, dootul mun a sotti euh, ndaw ñi ak war a wote say bu élection jotee Walf Quotidien xëy duñu ko leeralal ku opposition bi ne amaguñu ba léegi euh, xel mu dal ci bile fichier électoral Walf Quotidien mu ngi ñu tegtal wàllu élection locale ya woon daanaka ñu ngi ci prolongation ya ca Podor Mamadou Racine mi ñu ne ci jamono ji euh, ma ngi fay neewal doole Maître Aïssata Tall Sall ndax ndaw ña fekk euh, baax ca quartier col fii ba nañu Maître Aïssata Tall Sall wutali Mamadou Racine liberté de la presse taskatu xibaar yi amal toogaanu ñaxtu démb Eh, ca buntu ministère gi ñu dénk wàllu communication eh, ñaawlu nañu ñaxtu nañu anam yi nga xamante ne noonu la ñuy ak buntu xataal geeg fitna goo xamante ne eh, dañ koy dund ci mim réew Covid 19 professeur Seydi ne ci atum lem li fi coronavirus faat ci réew mi. Euh, daanaka mot na ñetti yoon yoo xamante ne euh, maanaam euh, paludisme bi mosu ko faat ci réewum Sénégal yéen a kaabi di enquête ci xëtam bu njëkk célébration 3 mai bëccëgu ñu jagleel liberté de la presse presse bi moom wane na ci tamit taxawaay gu mat sëkk toogaanu ñaxtu goo xamante ne amal nañ ko fii ci Ndaka fii ci Dakar Saint-Louis ak Mbour yéen a kaabi ne préfet bu Tamba moom dafa mujjee aaye toogaanu ñaxtu taskatu xibaar yi ne ca gox ba. Euh, yéenekaay bi di ñu degtal jafe-jafe yi nga xamante moom la presse bi di dundu mu ngi ci enquête yéenekaay bi di laas ne lu jëm ci audité fichier électoral bi ay experts ñoom jot nañu jébbal Sénégal la ñu jot a ci liggéey gañ leen santoon waaye nag liggéey googee dalul benn benn yoon euh, xelu kuréel gi boot euh, opposition bi ëllëg ak jàmm dañ ci janook taskatu xibaar yi ngir mun cee joxe seen i xalaat réew mi quotidien coow la jolleeti na foofee ca Ndengeleer eh, bokk na ci joyin itamit coow nga fa eh, askan wi jogoon di ñaxtu eh, ngir métitlu nekkinu Serigne Bara Sène foofe ca joyin yéen cabinet am na ci kañ kenn ca ña doon ñaxtu am na ku ca ñàkk bakkanam ca joyin yemook nag ca Ndengeleer moom ci wàllu suuf moo fa jib lu tollu ci juróomi doomi aadama ñoo fa jëlee gaañu gaañu yu métte métti mu ngi ci yéen cabinet di réew mi quotidien alerte quotidien ci mbirum suuf la des Mbambilor ak cool suuf ga am ca ndax njaxiraat SN HLM ak Descos meñu ne seen loxo laale na ca eh, alerte gamu def eh, jëmale ko ci njiitu réew mi Macky Sall moom Abdoulaye Wilane eh, nee na njiitu réew Macky Sall wax ay nitam rawatina ay ministre am ak ay fonctionnaire am xam ne kafrin benn kilifa dong ci wàllu politique moo fa ne ni Abdoulaye Wilane mooy ki ko xam ne moom député bi sursoit ci xëtam bu njëkk cool suuf la xëyee tey dossier bu yaatu ndax xëy amal euh, ci wàllu ci wàllu suuf rawatina tamit ci wàllu autoroute à bi yéen kaa bi xëy duñu ko gëstul yéen kaa bi di critique ne élection locale yi ñu jëm ñu ngi séentu euh, alliance euh, électorale maanaam lëngo dox ci diggante euh, Idrissa Seck ak ci réew mi Macky Sall yéen kaa bi di critique moo ñu ko xëy xibaar libération moom mu ngi ñuy dégtal Ablaye John di chef de village bu Ndengeleer ñoom jóg nañu ñaxtuwaat ni ki démb ne leen dong moo leen soxal mooy fexe baal ba jotaat seen suuf soose jotewuñoo ko waa Jilax waaye kenn donc la joteel mooy eh, ki nga xamante mooy Babacar Ngom njiital eh, Sedima ak na Sedima moo seen suuf soose foofee ca eh, Ndengeleer mu ngi ci Libération. yéen a kabi di le quotidien ne euh, fitna googi sax euh, coow la euh, dooraat na foofee ca ndengeleer bu doonoon ab film ñu ne ñu ngi ci saison 2 bi ab visil bu Sedima gaañ nañ ko fa gaañ yu métte métti yéen a kabi di le quotidien moo ñu ko yëggee Sud Quotidien mu ngi ñuy dégtal mobilisation gu takk goo xamante ne presse bi def nañ ko démb ci bëccëgu ñu ñu jagleel liberté de la presse anam yi nga xamante ne ñoo ne la taskatu xibaar yi liggéey anam yu métte métti jot nañ ko faa joytu dànkafu geeg xoxatal geeg euh, fitnaal gi loolu itamit jot nañ ko métitlu yeggee nañ ko jëru ngi ñu dénk euh, wàllub euh, communication doy na noone la ko yéenekaay bi xamle doy na ça suffit mu ngi ci Sud Quotidien li Quotidien ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy dégtal jàmmarloo gi dox ci diggante béykat ya ne ca Ndengeleer ak ay liggéeykatu Babacar Ngom am na ñu bëri ñu ca jëlee gaañu gaañu yu metti Bassirou Diomaye fay bu Pastef ne kenn dong moo mun a saafara jafe-jafe ndenge leer di njiitu réew mi ma fa signé ab décret Vox Populi ne syndicaliste ya mel ni nag ñu ñu tontu njiitu réew mi euh, Macky Sall euh, bokk na ci bu ñu sukkandikoo ci Sidiya Ndiaye mi xam le ne njiitu réew mi euh, Macky Sall ma ngay wax ne du ñu wéy di itamit di dooleel ay senior maanaam ñoo xamante ne jël nañu retraite ba noppi bàyyi ndaw ñi di fëgg ci buntu bërëbu liggéeyukaay te amuñu xëy loole nag Sidiya Ndiaye gis ne bu ñu waxee ay senior daanaka ay jegeñaale njiitu réew Macky Sall ay vétéran la ñu te ñoom lañu ñu jox alalu saay su ne ñu ngi koy fayeeku noonu la ko Sidia Ndiaye waxee 24 heures ci xëtam bu njëkk ndengeleer euh, dooraat nag euh, yëngoom ak fitna euh, chef de village bi nataalam fës lool ci xët bi bokk na ci ndengeleer ne la leen yitteel mooy jotaat seen suuf soose nga xamante ne tàbbi woon na ci wala boog tàbbi na ci loxoy waa Sedima Euh, l'évidence si xëtam bu njëkk coowal suufu geneen foofe ca Rufisque yéen a bi l'évidence xëy duñu ko yëggee leneen i tamit euh, ci xibaar bokk na ci lu waaju ci euh, ndénkaane kii di docteur Macoumba Diouf ca Latmingué dénk na ay étudiants yi kenn ku nekk i tamit fexe ba xam la la war nga mun koo jëfee ci yokkute Sénégal rawatina yokkuteb gox ba direct news dañu dégtal ñaar ñile baay ak doom seen dossier yegg na ca fu na doone benn euh, bu ñu sukkandikoo ci mbirum loka Afrique euh, baay ja di amadu Ba euh, joxoñ baaraamu tuuma doom ja ne moo salfaañe moo jalgati papier yàq ba loka Afrique nara tabbi ci ay loxoom mu ngi ci direct news. Euh, Turbine mu ngi ñuy dégtal sondage gu xamante ne Kantar 2020 def na ko ne Sen TV ak Zik FM ñoom ñoo jiitu ci googu lépp sondage mu ngi ci euh, Turbine yéen a kii bi di Le Soleil élection yi ñu jëm ak i tamit lu tukkee ci ay auditeurs internationaux ya doon càmbar fichier bi euh, gis nañ ne daal fichier gu wér la amul benn jafe-jafe mu ngi ci Le Soleil l'observateur xëy du ñu dégtal. njiitu réew mi Macky Sall kàddu yamu yëkkati bokk na ci tukkeem ga nga xamante ne eh, dem na ca Makka yéenekaay bi di l'Observateur xëy duñu ko yëggee ci xëtam bu njëkk yenn bi di Le Témoin mu ngi ñuy dégtal lu waaju ci éliminatoire eh, coupe du monde 2022 Eh, amul benn stade goo xamante ne dañ ko homologué maanaam dañ ko saytu ci anam yu mucc ayib eh, loolee nag eh, doon lu do témoin xëye tey tax na Matar Ba jëru gi ñu dénk wàllu tàggat yaram ma ngi cay indi ay leeral les échos Abdou baaxum la jox kàddu ne Ama Baldé bu waree dem sax ca Nigéria Eh, ngir itamit eh, gën a am doole ci wàllub xarga fuufa eh, dina ko def ngir daan Modou Lo yéen bi moo ñu ko yeggee ci xëtam bu njëkk ab ndawu Sénégal gu ñu ràññee lool ci États-Unis Rahma Ndaw lay yoo Euh, bokk na ci anam yamuy liggéeyee doon lu rafet lool ba tax na daal euh, ne bu sañoon euh, xam-xamam googee mu fexe ba mun koo sottil si fii ci réewum Sénégal yéen a kaabidi stade mu ngi ñuy dégtal Ligue des champion demi-finale yaa ngoog retour yi Manchester City war a dal war a dalal euh, Paris Saint-Germain yéen cabinet nag Paris bi bi le match mooy sànni euh, tàccoom euh, suñu lamb Balla Gaye 2 Boy Niang 2 Ama Baldé ak Modou bokk na ci tamit mag ñi ñoo fas yéene bëreek ndaw ñi. lamb moo ni bindoo danaka euh, kenn ku nekk làmb dab na la ba nga mun a bëreek euh, sarak euh, suñu lamb moo ñu ko yëggee yem ak fu ñu jeexalee xetu yéenekaay yi lu nuyoo tàggoo tàggatoo jot na jaajëfal jaratu Penda Diallo Guèye mu ne woon ci machine bi mbokk yi di leen jaajëfal ci kóolute gi ñu yendoog jàmm ak programme leeru jamono yàlla jàmm yàgg sax fi dàkk ci réew mi